mu a damay kii borom le 11 décembre. kii moo ma formé. ndeysaan nee na Aliou moo ko formé. Aliou boobu moo formé moo se fait diplôme entraîneur. waaw celui qui est fait. moom moo ne promoteur bi man naka la 11 décembre bëgg na la koy waaj diggante Boy ak Zambala. drapeau Abdoulaye Diop Khass. dégguma dégguma dégguma dara. Boy Faye Sambala drapeau Abdoulaye Diop Khass. spécial bi ma tuddee ko jabaram kenn mësu koo def ci réew mi. jëkkër ak jabar laa tuddee ko. maa ko jëkkër def. xam nga ne promoteur lu ñuy bëri bëri man rek maa ci am diplôme entraîneur ñee ma far na ñu ngi nii. damay innové damay innové. ak jabaram fu mu nu mu nar a mel. non loolu lu garaaw lay doon. dëgg la. daa xam la. daa xam làmb. règlement yi tey bu taw li ma déggee mu borom wax la ko. yaa yëngal CNT. non non ah mais daa jàll daa jàll formation. yaa yëngal CNT. yaa yëngal Gambie Diop. <laughs> maa a <laughs> Abdoulaye Diop Khass le 11 décembre day décorer Lamine Seck li TV oto. déggu ma déggu bu nekk am na ci lamb waaye décoration oto musul am ci lamb. sama journée la ko dogalee. ndeysaan sëñ Abdoulaye Diop Khass ne day décorer Lamine Seck oto bu bees tax. loolu nag sant yàlla di wane le 11. indi ngoyaan orchestre ngoyaan ci lamb. indi Momo Ngom. indi Mbaye dem dem Caaroy indi Kumbe. dama bëgg ku ñëw ci lamb ji gis yi gis seen bopp séeréer si gis seen bopp olof yi gis seen bopp incha allahu rabbi loolu lépp ci la os lay dama ne képp kuy lamb la os jamaïcain moo xewle caatu promoteur. maa ngi le plus jeune promoteur de histoire maa xewle. dëgg la na ñëpp ñëw. kii moo yëngal kii moo yëngal Ndiamé Diop. ndeysaan bàyyi sa réew mi ndeysaan ñoom ñëpp samay père lañ. donc rendez-vous le 11 décembre. le 11 décembre incha allah rabi. arène nationale fii incha allah. Sambala wulli Kalto. wulli dañ ciy bëree. wulli men Kalto. borom ak ak ak sànqkatu néew bi Kalto. fii la ñuy bëree entre 2000 supporters 2000 amateurs 3000 los. incha allah rabi décoration yi. ay góor a photographe. Ah, boo yaa yaa yaa yaay góor. bu yàgg sonn ci lamb la dama ko bëggoon a tuddee drapeau. mu ne ma non drapeau bi bañal naa ko. bu oyof ma ko nag bañ nga drapeau bi waaye dama lay décorer. incha allahu rabi ñeent seen bisu bopp drapeau laa leen tuddee. te yow incha allahu rabi yow tamit yaa la ci la 11 décembre am na Iba Kane ko ci décoré ak Sambala. 别上了，别上了。